alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa tabi'in la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nuyu mbokki jullit yi mbokki lislaam ji yépp nuyu jullit ak moroomam muy nuyoo bu sell waaye di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa tabaraka wa mu defal ñu ak njéggalam ak yërmandeem ñu dellu siwaat rekk ci sunu jotaayuk yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu fàttalikonte jotaayu xam-xam ñu nekkoon doon jàngale sunu téere bi ñuy wax aljawharun nafis ñu tolloon nag ci sunu bunt bi mujj mu doon jàngale ci mukallaf di ab jullit yim war a wattandiku ci boppam mu tolloon ci jullit bi war naa wattandiku lépp lu muy xool ci ay bëtam te mu nekk lu xaraam rek mu wattandiku ko kon julit bi war naa bàyyi xel ci boppam bu baax ne bëtam yi ko suñu boroom jox lépp lum ci xool na nekk lu neex suñu boroom lépp lum ciy xool bu moo xam ci ab télévision la wala nekkul ci télévision wala lu mel ni photo wala lu mel ni appare portable yi lu mu ciy xool rek war bàyyi xel ne lii lu dagan la wala daganut bu dee dagan nag mu xool te xam ne am na ci tiyaaba waaye bu dee lu xaraam nag na xam ne am na ci bàkkaar kon lu jara bàyyi xel la ci suñu jamono ji ñu toll nga xam ne portable yi bari na lool di génne ay image yoo xam te ni xañ na nekkut image yu rafet te nit ñaa ngi koy seetaan te duñ ko bàyyi xel kon yu loolu lu jara wattandiku la kon mu mel ni ñi ngi yemoon ci suñu bunt bi di wax ne wa minhu bokk na ci yi ab jullit wala wattandiku nazratun ab xool alaxti xaari ci xeebeel kaza niki nii li tax wii fin ngir ak ragalloo awinte xaari wala gëdd mu ne bokk na ci ab jullit kat lépp loo xam dafa nekk ab xool sax boo xam te ni dafay xool jullit bi ngir xoolub xeebeel ndax am na xool yoo xam te ni kooku xool dina xam ne kii kat xool bii ma xool de xoolub xeeb la ma xool sëriñ bi nag nee na moytu la xool sa moroom jullit benn xool boo xam te ni xoolub xeebeel la wala nga koy xool xool boo xam te ni xoolu ragal loola mooy nga mel ni yaa ngi jàkkaarloog nit ki di ko xool waaye yaa ngi koy xool xool boo xam te ni danga koy xool ngir mu ragal wala ngay xool wala ngay gëdd nit ki gëdd ko maanaam ngay wax ak moom di ko gëdd ngir bëggum ragal la walla nga ko gëdd ngir wàññi ko ñu ne loolu lépp na ko wattandikoo def sa moroom jullit mu ne wayadd manu waral na ak fay alxaa ji maa la nga xam te na ko bi xay ni ci ay bëtam kama xadd xakaa ni ka ko nettalee ra'iisu kilifa gi wayus janu ak ñuy tëj almixyaanu aji bëtal ji aji bëtal nag buñ ko waxee mooy koo xam te ni ay bëtam dafa am gaaf ay sus taxara fu mu ci ak loram fii manzilihi ci këram ay wattul xibaar ga moo wax ne kat ne ki nga xam ni ay bëtam dafa am gaaf maanaam suñu borom daf ko bindee mu am bët yoo xam te ni lu mu xool mu am ay yàqu-yàqu walla mu yàqu sax ci sens mu ne koo kat war na ci moom lépp lu mu xool bu yàqoo ba ñu xam ne kii kat moo ko xool mu yàqu wala moo ko xool mu def jeexantal bu baaxul kooku li war ci moom mooy na fay loolee loolee mu yàq ci ay bëtam kon da ko war a fay mu ne tamit kooku buñ demee ba ràññee ko ba xam ne kii kat ay bëtëm dafa am gaaf xam ne kii ay bëtam ay bëtam dafa am tooke buñ demee ba xam ko ndax loolu jamono ju njëkk ja daa dañ koo xam ndax boo xoolee ci hadis bi nga xam te ni dafay wax lu mel noonu dafay dem bay wax sax naan ki mu dal bu dee dafa xool mbir moo xam ne daf koo xool mu yàqu wala mu am gàllankoor wala mu xool nit mu am gàllankoor niñ ko war a fajee kon ñoom daanañ ko xàmmee xaw ma nag suñ jamono yii nañ ko xam ba tey waaye bu dee xam nañ ki nga xam ni ay bëtam dafa am gaaf lu mu xool mu yàqu kooku kat dañ ko war a tëj ci këram dañ ko yóbbu ba këram tëj ko ne ko kër gi kat bu ci génnati ndax boo ci génnee lépp loo xam ni xool nga ko mu yàqu rek da koy fay kon loolu mooy àtteeb kooku boo demee ci téere xam-xam yi sax dañ koy jàngale yu mel ni ar risaala am na loo xam te wax na ko ci mu ne wa ifzuhu bokk na ci ak wattoom moom mu mukallaf mi di ab jullit aljawaariha cër ya albatnu biir lisaan làmmañ farjun pëy mooy sawukaay wa rijlaani ak ñaari tànkam ya wa aynaani ak ñaari bët ya yadaan ñaari loxo ya saabihuha juróom ñaareel ba al uznaani mooy ñaari nopp man ka nga xam te ni raxaa sàmm na la ñeel cëram yooyee anil maasi walif ak mooy aasa làq na xas dan ak njub ajmaha mboolem seen is ngir kullu xodduwin bépp cër saa yow sama àndandoo xaabalat jàkkaarloo naag min ha ca moom cër ya baaban ab buntu minal niiraani ca buntu sawara ya fii maa ci la xam te xadd sabat sax na wa kullu man képp koo xam te nii xaafisaha wattu na ay cëram ba moyu ci yàlla laa yadxul du tàbbi baaban ci bunt ya minal bii baaban ci bunt minal bii ca bunt ya fii maa ci la nga xam te nii yoon xalu toxaleef na ko mu ne bokk na ci mu kalaf di ab jullit muy sàmm ay cëram cër yi nga xam te ni suñu boom daf ko ko dénk muy ay tànkat ak muy loxo muy biir muy làmmiñ muy nopp loolu lépp mu watt ko ba bañ cee mooy yàlla ndax juróom-ñaari cër la yoo xam ne suñu boom daf koo jox doomu aadama bi waaye daf koo mu sàmm ko sëriñ bi di xamal ne kat képp koo xam te ni wattu na ay cëram ba moyu ci yàlla juróom-ñaari cër yooyee biiram bi lekku ci lenn lu xaraam làmmañam bi waxu ci lu neexut yàlla pëyam bi defu ci lu neexut yàlla tànkam yi doxu ci lu neexut yàlla bëtam yi xoolu ci lu neexut yàlla loxoom yi xoolu ci lu neexut yàlla noppam yi déggu ci dara lu neexut yàlla nee na nga xam ne dafa sàmm ay cëram yépp ba moyu ci yàlla nee na kooku kat cëram yooyee du tàbbi sawara cëram yooyee du tàbbi sawara ndax li tax mu ne cëram yooyee du tàbbi sawara mu ne nanga xam ne képp ku suñu borom dénk juróom-ñaari cër yooyu juróom-ñaari cër yooyu mu yore cër bu ci nekk dafa am buntu sawara bu mu jàkkaar lool cër bu nekk dafa am bunt sawara bu mu jàkkaarloo kon nag bu fexee ba muyut ci cëram yooyee kon dina am ak njub dina am ak mucc tey ak ëllëg dina am ak texe tey ak ëllëg moo tax mu wax ne wa kullu xoddiwin bépp cër xadd xasayta goog mooy na biha ca moom cër ya abada ba faw tadduxul dana tàbbi biha ca buntam ya bihaa ci moom ñoom cër ya baabahaa buntam ya xadaan ëllëg mu ne wa kullu xoddi win bépp cër xad xasayta goog mooy na bihaa ca moom cëram yooyee abadaa ba faw tadduxul dina tàbbi bihaa moom cëram yooyee baabahaa ci buntam ya xadaa ëllëg mu nekkat na xam ne kon bépp cër boo xam te nii nit ki daf koo am mu fexe ba mooy ci yàlla mooy juróom-ñaari cër yooyu mu la limal léegi mu mooy ci yàlla nee na cër yooyee dana tàbbi ca bunt ba mu jàkkaar lool muy buntu sawara ba ca lay tàbbi kon képp koo xam te ni am na benn cër moo xam ay loxoom moo xam ay tànkam bëtam làmmañam ay awraam ay noppam benn bu mu ci mooy rek yàlla rek nee na ëllëg yamal xiyaam buy dugg sawara ca bunt boobee jàkkaarloog cëram boobee bu dee loxoom la bu dee tàngam la ca lay jaaree dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal kon buntu sawara yooyee bu nekk dafa jàkkaarloog cëru doomu aadama doomu aadama bi nag bu góorgóorloo ba moyut ci cëram yi ko suñu borom dénk kon boobaa am na ak texe léegi man xiyaam kon këram mooy àjjana waaye bu ci mayee nag kon ëllëg yowmal xiyaam këram mooy sawara ndax nee na juróom-ñaari cër yi su boroom dénk doomu aadama cër bu ci nekk dafay jàkkaarloo buntu sawara bu fexee ba góor ba mayu ci yàlla cër boobu mucc na bu muccee ne fu jëm mooy aljanna kon loolu nag nañ xam ne suñ jëmm yii ñu yore suñ boom daf ñu koo dénk nañ fexe ba suñ biir buñ ci lekk dara buñ ci tàbbal dara lu nekkut yàlla lépp luñ ci tàbbal rek na nekk lu lew lu dagan lu teey suñ làmmañ yii nañ fexe ba di ci wax lu baax di ci wax loo xam te ni am na ngërëmal yàlla bañ cee wax aw ay bañ cee wax lu neexut yàlla suñ awra yi nañ fexe ba lépp luñ ciy def na nekk lu neex yàlla sunu tànk yi luñ ciy dox na nekk jéego yu jëm ci yoonu yàlla sunu bët yi lépp luñ ciy xool na nekk lu jëm ci yàlla lu neex yàlla sunu loxo yii lépp luñ ciy def na nañ fexe ba mu nekk lu neex yàlla sunu nopp yi lépp luñ ciy déglu nañ fexe ba nekk mu nekk lu neex yàlla nee na nag buñ defee noonu lépp suñ cër yëpp ñu sàmm ko kon nag suñ boom dinañu boole ëllëg yamal xiyaam ci gaay yi xam ne ñoo texe te dinañ ko am ci àdduna am ko ëllëg yamal xiyaam kon loolu nag lu jar a bàyyi xel la kon cëri doom aadama yi ndénkaane yàlla la ndénkaane yàlla nag la ca war mooy sàmm la neex yàlla nga def ko ca kon nag xam naa dañuy yemale fii suñu jotaayu tey di jox dig daje ci beneen jotaay ñu yeggale ba tey ci ndénkaaneel sëriñ bi mi ndénkaane yu am solo yu jara bàyyi xel kon ñu ngi sant xanaa ñiy teewlu jotaay bi yëpp moo xam ñu nekk ci biir réew mi la moo xam ñu nekk bitim réew ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu boom defal ñu dégg ak topp lépp li fi jub ci yàlla la lu fi dëng nag ca suñu jëm yu xeew yi la ñu dogal ngànt fi ñëpp di wax ne in uridu illa al islaaha ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey